Euh, jaa ngeen jëf ah. maa ngi leen di nuyu seen euh, frère artiste Tidiane seen Safara dafa am benn jàngat taxaw seetlu bu ñu def ci diggante ministère de la culture ak diggante direction des arts ñàkk respecté bi ñu ñàkk respecté artistes musiciens yi parce que dañu seetlu depuis li nga xam ne mooy force fond Covid bi nga xam ne première tranche bi génne woon nañ ko ñun ñi nga xam ne nous des artistes musiciens dañu demoon ci aide yi jële ji suñu euh, xaalis fële ca euh, SODAV SODAV bi ñu demee malgré amoon na ay ay rang malgré amoon na bousculade mais dañu constaté woon ne SODAV ñi nga xam ne seen tour ñu ngi ci liste bi dañ lay accueillir nga ñëw dugg ñu yëkkati sa xaalis konteel la ba mu mat jox la nga dem sans problème déggoo ci benn coow alors te jii le président de la république amaat beneen aide boo xam ne génne waat nañ ko ndax gis nañ ne artistes yi boobu ba léegi Covid bi daf leen tënk te gis nañ ne deuxième vague bi dafa ñëwaat mais li nga xam ne ñoom ñooy ministère de la culture te nga xam ne ñoom la président wax ne cette fois-ci seen loxo lañ koy teg. parce que boo demee SODAV dañ lay wax nekkul ci seen loxo distribution yi mi ngi ci loxo ministère de la culture waaw alors comme distribution yi mi ngi ci ministère de la culture mais artistes musiciens yi mënuñu dul dem ministère de la culture dem vers l'information léegi nag ñun artistes yi xawma kan mais man sol naa samay dàll dem naa ba ministère de la culture mais doo gis koo waxal duñ la jox accueil boo waxtaanal duñ la ne fii ngay jëlee information lu dul damaa dem dajeek sax benn benn sàmba booy laa dajeel ci bunt bi xaw ma ci biir fekk leen ñu toog ana diw ñu ne la gars yi liggéeyuñ fermer tous les bureaux dama ne loolu moo dul yoon te je crois que Sénégal dafa mel ni artistes yi musuñ leen a respecté wala dama jàpp ne euh, artistes yi siiw ñu mag ñi lañ respecté quoi wala bu fekkee ñoom la seen xaalis di ñëw te duñ déplacé wu seen kër nañ ñu wax wala bu fekkente ne ñaari artiste moo am Sénégal euh, ku ma am ndey ak ku amul ndey nañ wax mooy wax ministère de la culture nañ respecté artistes musiciens yi nañ leen respecté ndax ñoom liggéey li ñu leen jox du pour ñoom le président daf ko génnee pour les artistes yi nga xam ne dañu nekk ay victimes ci Covid bi dañu sonn parce que depuis at a ngi nii liggéeyuñ defuñ spectacle defuñ concert léegi nag le ministère de la culture ñoom ban rôle lañ am ci biir réew laa bëgg a laajte. ndax yow ministère li ñuy wax ministère mooy ñi nga xam ne département ba nga yëngatu mais bu la nañu soxlaa nga teew yemul foofu ñu ne ñu da ngay dem direction des arts pour ñu mën laa euh, foofu ngay dem ñoom cette fois ci tamit laaj leen mais sol nañ suñu dàll dem nañ ba biir direction des arts ba dugg ci biir direction des arts mais la lañ lay jox benn numéro fixe lañ lay jox ne la wooteel fii après mais loolu est-ce que logique ne est-ce que yoon la mais ñi nga fekk direction des arts ñi nga fay fekk ñuy liggéey ñu ngi cité kër góor gi mais boo dugg see direction des arts da nga fekk ay ñu ngi toog mais lan mooy seen rôle dañ ne direction des arts bu ngeen recevoirul artistes yi jox leen information yéen direction des arts kan ngeen di jox information wala kon gole yi ngeen di jox information wala muus yi ngeen di jox information wala da ngeen di recevoir ouvrier yi di leen jox information je crois que nañu bàyyi caaxaan yi artistes yi depuis nga gis bi euh, force fond Covid bi démarré que muy première vague bi am na sax ñu jotul mais dañoo noppi muñ deuxième vague bi ñëw les cette fois ci les gens ne vont pas se laisser faire ndax lu ngeen ñu njëkk a wax da ngeen joxe seen page Facebook ak seen site internet daal di ne képp koo xam ne jotul na def réclamation mais nit ñi envoyé nañ réclamation ça fait depuis un mois ci adresse mail bi ngeen joxe la yenn artistes yi. envoyé nañ seen réclamation di déglu ñu toog toog dégguñ leen au moins sax ngeen defaat beneen communiqué ne sax yéen artistes yi ñun ministère de la culture wala ñun direction des arts ñu ngi leen di wax ne ngeen xaar ñu ngi nekk ci liggéey bi mais déedéet artiste bi mooy mooy sol dàllam di daw te bu demee ngeen tëjal ko seen bureau yi ngeen tëjal ko seen bureau yi ba artistes yi mënuñ am accès zéro information sur les artistes loolu man maa ko wax man Tidiane Sène Saffara amul benn artiste bu ne am na information yu leer ci li nga xam ne moom mooy euh, ñi jotul ci réclamation yi ñi jotul maanaam xaalis bi génn na ngeen am ñu ngeen jox séddale d'accord ñooñu dañ ko war a jot mais dafa am ñoo xam ne depuis quinze ans ñu ngi nekk ay artistes depuis vingt ans di fayeeku SODAV euh, depuis BSDA di fayeeku seen i droit ah di fayeeku ay répartition ñooñu defe naa mënoo leen jox ñeneen tëb leen c'est impossible ndax ñooñu sax ñoo gën a légal ndax ñoom ñoo am ay carte BCA mooy ñun ñii di wax ak yéen léegi nag li nga xam ne moom la artistes yi di woote man maa leen koy njëkk a wax les artistes tant que la euh, ministère de la culture le ministre de la culture wala ki nga xam ne mooy directeur des arts tant que teelu ñoo def le point mu leer ci les artistes que xaalis bi matul kon du ngeen mën a jot mu leer ci suñ nopp parce que du xaalis bi sax moo ñu intéressé ndax xaalis bi fu ñu fekk fa la ñu bàyyi xam nga atu yàlla boo ko nekkee di daw ah di toog croiser les bras xam nga du ay cent mille ak quatre vingt dix mille moo lay teree nelaw wala moo la teree dundu ñu ngi sant yàlla ñun les artistes mais dafa di respect aux artistes dafay yoon kenn respecter les artistes surtout les rappeurs maintenant dañ leen di jox li nga xam ne moom mooy délai parce que xaalis moomu leen ko bu ngeen ñu mënul bu ngeen mënul wax ak artistes yi ñun ñu génn wax ak le président de la république ndax léegi defe fu sénégalais yi waxee yomb na ndax yàggul weer a ngi nii euh, même pas 15 jours am na fu booy doon waxee junj nag doy borom xel. même pas weer laa wax ci ginnaaw am na fu jeunes yi doon wax ak président Macky Sall ci mbedd mi ba président Macky Sall génn wax ak jeunes yi léegi nag les artistes dañu bëgg yéen waa ministère de la culture wala yéen waa SODAV euh, du moins parce que SODAV ñoom nee nañ cette fois ci teguñ ko seen loxo. kon SODAV duñ leen wax dara ñu leen wax tooñ leen yéen ministère de la culture yéen ñu ñu jox force fond Covid bi te ngeen koy séddale yéen ñi nga xam ne yéen ay direction des arts tijji leen seen bunt yi artistes yi mën a dugg ngeen wax leen lu leer su xaalis amul ngeen nañu xaalis amul bu xaalis amee ngeen génn jox ñi nga xam ne dañoo réclamer te ñoom seen tur nekk ci biir moo gën yi ngeen di def sinon sinon seen seddale bi ngeen di séddale le de la république dina si jot. te aussi fu ñu mën a dem ak yéen nañ ci dem parce que xaalis bi du seen xaalis encore une fois suñu xaalis la amuleen sax droit ñu leen di laaj wala ñu leen oo tey nga oote jot benn kuñ naan benn jigéen fa fële nga oote waat jot benn góor mu ne la grand waa sa tur benn ci liste bi affaire yu ñàkk fayda yooyu yéen ngeen nekkee les jeune artist dañ ko dépassé bu leen yàpp les artistes donc respecté leen artistes yi bu ngeen buggee ñu respecté leen yéen ministère de la culture man yéen laay waxal ak yéen direction des arts yéen laay waxal alors loolu moo nekkoon tey suñu kaddu bi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati di au appel ki nga xam ne mooy njiitu réew mi le président de la république bu fekkee mi ngi may dégg bu ci mënee jot nga ne ko gars yi liñ séddale leerul munuñ fu xaalis bi dugul leerul ñi jot ñi jotul dañoo bari te am na sax ay double tranchant pour muy leer am na ñoo xam ne duñ ay artistes jot nañ am na ñoo xam ne jot nañ ñetti yoon am na ñoo xam ne duñ ay artistes jot nañ am na ñoo xam ne jot nañ ñaari yoon jot nañ ñetti yoon c'est ça qui n'est pas normal maa ngi rendre hommage ndem si yàlla si Thione Seck bërki démb laay seetaan benn interview ci Walfadjri benn émission mais yàggul bi ko Thione Seck di wax effectivement Thione Seck il tout fait pour xeexal les artistes ah les musiciens pour que ñoom tamit ñu bañ leen fàtte ñu am seeni droit alors respecter les artistes encore une fois ngi yàlla ministère de la culture yéen moom chronique bi yéen a moom sortie bi euh, direction des arts yéen a moom sortie bi man la Ahmed Tidiane Thiam Tidiane seen Saafara artiste rappeur chroniqueur euh, ñu ngi wax nag ne ñun dem nañ Sodav Sodav dañ nañu mi ngi ci loxo ministère séddale wuñ ñooñu duñ leen wax dara non seulement ñun nous sommes déparés ci Sodav mais su ngeen amul xaalis ngeen wax ñu ngeen bàyyi di këyit loolu nit ñi naan ñu tey suba tey suba tey suba encore une fois maa leen di jaajëfal di di remercier euh, di jaal aussi artistes musiciens yëpp ki nga xam ne mooy Thione Ballago Seck parce que c'est une occasion depuis boobu dañu nekkoon ci dëj nekkoon ci ay jafe-jafe gis ngeen réew mi émeutes yu ñu jógee manifestation yu ñu jóge donc damane ne il est temps rupture dafa xew te rupture mooy yoon ci réew dëkk bi dafa métti milliards yooyu ñu génnee du pour yéen génne leen milliards yi jox ko doomu aadama yi jox ko les parce que gënu leen ñu koy yoyoo sinon dinañ leen tontu ci beneen aspect waa parce que nag euh, ñun fam lu ñu doxee maa ngi leen di jaajëfal jërë ngeen jëf ba beneen yoon merci beaucoup